yaa ayuha annaasu ttaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiiran wa nisaa wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaam inna allaha kaana alaykum raqiba yaa ayuha alladina aamanu ttaqu allaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muxdatatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar ayuha alixwatu walaxawaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di am mbégte ci teew ci jotaay bu mel nii di jiital ci nuyoo bi jàngalekat ak wootekat yi fi nekk ak aimma yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ci ay jullit góor ak jigéen di leen nuyu ñoom ñépp di ñaan suñu boroom tabaraka wa taala li ñuy sàkku ci jotaay yu mel nii te mooy bokk nafar fàttaliku laayante biir suñu boroom tabaraka wa taala la mu ci digge ci njariñ lépp mu defal nu ko te nangul nu ko buntu waxtaan wi nag ni ko mbokk mi waxee mi ngi jëm ci taxawaayu jullit ci boppam waaye taxawaayam itam ci njabootam taxawaayam bi mu war a taxawee ngir mën a mucc ëllëg waaye taxawaay bi mu war a taxaw ci njabootam itam ngir njabootam mucc muy wujubu wiqaayati nafsi wal ahli min an naar war goo xam ne kenn ku nekk war nga koo taxaw taxawaay boo xam ne dana tax nga mucc ci safara waaye taxawaay boo xam ne ci sa njaboot itam soo ko ci taxawee ñoom itam dañ mucc ci safara ñu teg ko ci aaya bi borom bi tabaraka wa wax joxe ci ndigal ñi gëm yàlla ne yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara qu anfusakum wa ahlikum naara kooku ndigal la suñu boroom tabaraka wa jëme ci mboolem ku gëm yàlla nee na na nga fegal sa bopp fegal sa njaboot safara ndax safara li feeg mi ngi ci kanamu jaam bi muccagu ci bu boobaa muccagut te itam amagul dara moo tax suñu boroom ne fa man suxtia an innaar wa udxila aljanna faqad faaz nee na alfawz dëgg muy am li nga doon wut mucc ci li nga doon ragal loolu mi ngi ci nga mucc ci safara te safara ku ci mucc rek daal di tàbbi aljanna moo tax mu ne fa man soxsiha ani naar wa udxila aljanna faqad faaz kon yitte bi gën a rëy boo xam ne taxaw na ci kanamu jullit mooy naka lay def naka la war a mel su bëggee mucc ci safara moom ci boppam waaye lan moo war a doon itam taxawaayam ci njabootam su fekkente ne bëgg na jabootam googu mucc ci safara suñ boroom dal wax ne fattaqu naar allati waquduha annaasu walxijaara uiddat lil kafirin na ngeen wattandiku safara safara bi nga xam ne mattam nit la ak xeer te nee na ñi ngi ko dël ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla ñu jële ci Adiyu bnu Xaatim radiallahu anhu mu jële ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne maa minkum ahadun illa sa yukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu turjumaan wala xijaaba yaxjubuhu fa yanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali wa yansuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru bayna yadayhi fala yara illa annaar tilqaa wajhi fattaqu nnaara walaw bishiqi tamra muttafaqun alayhi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne amul kenn ci yéen lu dul ne boroomam dana wax ak moom kenn du dox ci diggante bi amul benn kiiraay itam bu ko yiir nee na mu xool wetu ndeyjooram du gis lu jiitaloon ci ay jëf mu xool wetu càmmooñam du gis lu dul li mu jiitaloon ci ay jëf mu xool ci kanamam du gis lu may safara yonente bi alayhi ne na wattandiku safara na ngeen jëf lu leen di musal ci safara doonte sax sarxe xaritu tàndarma la lu mu néew néew sarax boo génne ngir yàlla bokk na ci jëf yi nga xam ne dana musal nit ci safara yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam la ne ci njaboot kenn ku nekk ab sàmm nga ci addis ba na mu ko tuddee ba egg ci ne war rajulu raain ala ahli bayti góor ab sàmm ci njabootam ci waa këram wa huwa masulun an raiyati danañ ko laaj loolu ñu ko sàmmloo woon te sàmm ga mooy njaboot googee mucc ci safara loo mën a def ci njaboot gi te muccuñ ci safara bu boobaa càmm ga ruur na boobaa jofaloo jofalin wa nga xam ne moom lañu ñu gërëm ndax borom bi nee na safara comme nekk ci sa kanam lépp loo am rek bu ñu la ko laajoon ngeen nga mucc ci safara da joxaloole kon ku muccagul ci safara amul dara aaya alquran yu li mu dikk na di wan nit ki responsabilité bi mu am ci boppam ci ne su defee lu baax njariñ la ci moom lay dellu si waaye su defee ab safaan itam lor ci moom lay dellu si bokk na ci suñu borom tabaraka wa taala di wax ne xad jaakum basairu min rabbikum faman absara fa li nafsi wa fa alayha wa ana alaykum bi xafiz borom ne ay tegtal yu leer yoo xam ne dana leen wan aw yoon dikkal na leen jóge ci suñu borom tabaraka wa taala ci yeneen mu tudde ko ak leer qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subul assalaam kon tegtal yu leer yu wane aw yoon dikk na jóge ci suñu boroom te mooy alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko nangoo xippi nag sab gis xool yoon wu jub woowu nga topp ko ah njariñ la ci yow lay dellu si fali naf ci waaye nee na koo xam ne nag gëmm na ay bëtam wala ay bëtam muuru na ba nanguwul a gis yoon woowu fa alayha la cay jóge itam ci lor ci moom lay dellu si borom bi dal wax ne inna anzalna alayka alkitaba linnaasi bilxaq fa man ihtada fa li nafsih wa man dalla fa innama yadillu alayha wa ma anta alayhim bi wakil mu ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam wàcce naa ci yow téere bii ci téere bi nit ñee ko tax a jóg anzalna alayka alkitaaba linnaas ngir nit ñi mën a gindiku bil xaq ku gindiku boppam waaye ku sànku na nanguwul a topp téere bi boobaa cànkute googee ci boppam rek lay dellu si borom bi dellu wax ne man amila salihan fa li nafsi wa asaa fa alayha wa ma bi zallamin lil abid ku jëf-jëf ju baax te mooy jëf joo xam ne ju ñu yoonal la ju ñu digle la ci alquran ak ci sunna yonente bi alayhi wassalaam du doon jëf ju ñu fent te mu dëppoo ak sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam ca defin wa te mu sell yàlla rekk tax loola mooy al amalu saalih mooy jëf ju baax fokk ñetti sart yooyu daje ci mu ne ku ko def nag fa li njariñ la ci boppam lay dellu si waaye ku ñaawal nag te mooy sart yooyu ñu wax nga bàyyi ci benn rek ñaawal nga jëf ji rafetatul mooy jëf ja kenn diglewu ko bi daala yaa ko fent wala keneen a ko fent nga jële ko ci moom wala sax jëf ja digle nañ ko waaye na nga ko defe wuute naag ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon defe wala sax digle nañ ko defe nga ko ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon defe waaye sellul am nga ca beneen jubluwaay bu bokkul ak wut nga ngërëmul yàlla yooyu bu ci am rek ñaawal dal day am wa man asaa fa alayha boobaa ñaawal na jëfam la cay juddoo ci lor ci moom lay dellu si wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla day nekkul di kuy tooñ ay jaamam suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy tuddal ci ay aaya yu li mu itam nit ki nu muy perte boppam muy dem ba nga xam ne waxuma la di ama ci dara waaye moom ñàkk na boppam sax far te mooy muccul texee dina bu boobaa doon na bëgg sax bañatee am mooy fa nit kiy demee ba naan yaa lay sa ni kuntu turaba ak a neexoon ma nekk suuf wala ma bañ a nekk dara mooy bu boobaa gis na ne moom perte na lépp ba perte boppam moom la borom bi naan allazina xasiru anfusahum fahum laa yuminuun nee na ñi nga xam ne perte nañ seen bopp la ko waral mooy dañoo gëmut dañoo wéetalul suñu borom tabaraka wa taala ngëm ga nga xam ne moo leen mën a musal ci safara borom bi delloo wax ne wa man xaffat mawazinuhu fa ulaika alladina xasiru anfusahum bima kaanu bi ayatina yazlimuun nee na ëllëg ku ñu peeseel say jëf jëf yu baax ya woyof lool safaan ba gën koo diis nee na ñooñee ñooy ñi nga xam ne perte nañ seen bopp te sabab ba la ko waral mooy tooñ gi ñu doon tooñ seen bopp ci di bokkaale yàlla ci di moy yàlla ci di ñàkk tënku ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu boroom tabaraka wa taala di wax ne wala xad jinahum bi kitaabin fassalnaahu ala ilmin hudan wa rahmatan li qawmin yuminuun hal yansuruuna illa ta'wila yowma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladina nasuuhu min qablu qad jaa'at rusulu rabbina bilhaq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nu raddu fa naamal gayra allati kunna naamal suñ boroom ne xad xasiroo anfusahum wa dalla anhum maa kaanu yaxtaruun laqad jinaahu bi kitaabin fassalnaahu ala ilmin suñ boroom nee na andil naa leen ab téere boo xam ne dañ koo faram fànce leeral ko naññ mu tegu ci xam-xam bu leer hudan wa rahmatan li qawmin yuminuun fees dell ku njub ak yërmande waaye nag ci ko gëm mu ne nag ñi wan gannaaw téere bi lan la ñuy xaar ndax dañuy xaar bis ba téere bi firiku ci ay jëf lim lay wax nga teg ci sa bët lim ne wala taalamunna naba'ahu ba'da xiin xibaar bii téere bi di wax diir bu yàggul rek da ngeen ko xam dangeen ngeen ci teg seen bët wata mu ne yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladina nasuuhu min qablu ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon gannaaw téere bi fàtte ko nangu wuñ koo jàng boobaa danañ wax ne xad jaat rusulu rabbina bil xaq ndeke kat yonent yi dëgg lañ indi woon ndax li liñ doon wax lépp a ngi ni tey li la alquran di wax lépp ci safara ci siraat ci ajjana ci la fa nekk ci xéewal te nekk ci mbugal ci safara lépp nga teg ci sa bët boobaa ñu ne ndeke yonent yi waxoon nañ dëgg fa hal lana min sufaa fa yasfau lana amuñu dara luñ cee teg moo ndax amul ñu nu mën a ramm tey aw nu raddu fa naamal gayra alladi kunna naamal wala boog ñu delloonu àdduna nu jëf jeneen jëf ju bokkul ak lan doon jëf nu jëf lu baax suñu boroom ne ñooñu xad xasiroo anfusahum perte nañ seen bopp wa dalla anhum ma kaanu yaftaruun la ñu doon duur di ko sos di wax leneen lu bokkul ak li yàlla wax nee na loola gisatuñ ca dara borom bi dal wax suratul muminuun wa man xaffat mawazinuhu fa ulaika alladina xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun koo xam ne ay jëfam yu baax wayef na jëf yu safaan ba gën koo diis nee na ñooñu perte nañ seen bopp kon liñ leen digaloon ci musal seen bopp defuñu ko waaye perte nañ seen bopp te ci jahannama la ñuy benn yeneen aaya mu boole nit ki perte boppam perte njabootam qul inna alxaasirina allasina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyama ala dalika huwa alxusraanu almubin suñ boroom nee na alxusraanu almubin muy perte gi nga xam ne mooy perte dëgg dëgg dëgg dëgg nee na mooy ko perte boppam perte njabootam ñàkk na boppam ndax texee dina waaye njabootam itam texee dinañu borom bi dala wax ne wa qaala alladina amanu inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala inna alzalimina fi azabin muqim ñi perte dëgg mooy ñi perte seen bopp perte seen njaboot yowmal xiyaam nee na ñi nga xam ne dañu doon tooñ di bokkaale di ñàkk tegu ci ak njub ñooñu ñu ngi ci mbugal moo xam ne mu sax la cheikh abdourahmani saadi rahimahullah ci tafsiram ci aaya yooyu mu ne allatina xasiroo anfusahum xaysu xaramuha alsawaab wastaxaqat bi sababihim wa xiimal iqaab mu ne niñ perte seen bopp mooy xañ nañ seen bopp tuyaaba seen bopp yeeyoo na mbugal mu tar te ñoo ko sabab wa ahlihim mu ne ay furriqa baynahum wastadda alayhim alxusnu wa xazuma alxusraan nee na boobaa dañuy tàqale seen diggante seen njaboot ben bu seen njaboot texee te ñoom texewuñu du ñu ànd ñoom bu ñu texewoon ca njaboot ga texewuñu itam du ñu ànd bu ñu bokkee texee di itam kenn ku nekk yaa ngi ci sa mbugal moo xam ne doo tal sa morom kon kenn ku ci nekk ñàkk nga sa morom alxusraanul mubin mu ne laysa misluhu xusraan wa huwa xusraanun mustamir laa ribha baadahu bal wala salaama nee na la goo xam ne perte bu continue la ngañaay duutu amati ca gannaaw ba suñu borom tabaraka wa taala tudd ci ay aaya sabab lenn ci sabab yoo xam ne dana tax bu ëllëgee nit ki perte boppam perte njabootam mu ne tumma zahaba ila ahlihi yatamatta ay jadalan ashiran bataran kaslaanan laa himmata lahu wala amala tafsir ibnu kasir mu ne koo xam ne bu demee ci njabootam dafay puukaréewu day bég dafay rëy rëylu day tayel du am benn yitte du am benn jëf bu baax bu muy def ci biir njabootam lu mooy lu ko neex neex njabootam rek lay nekkee ci biir këram kooku loolu moo ko yóbbee perte googu ak alkande jooju suñ borom dellu wax ne fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa sawfa yuxaasabu xisaaban ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitaabahu waraa zahri fa sawfa fi ahlihi masrura kon borom bi tabaraka wa taala na ñaari delluwaay ci sa njaboot yu ànd ak bu njëkk bi mooy ki nga xam ne texe na nangoo ne téeréem ci loxo ndey ñu regle ko regle boo xam ne bu jàppandi la mu dell ci njabootam àndak njabootam dugg biir aljanna mbégte ma foofa la ca biir aljanna wa yanqalibu ila ahlihi masrura amma ki nangoo téeréem ci gannaawam kookee nga xam ne dana woote ne moom alkan alkuna suñ boroom ne li ko waral ci àdduna innahu kaan fi ahlihi masrura suróor boobu nga xam ne mbégte moomu nga xam ne ca aljanna la waroon a doon teg sa bopp ci dëgg teg ci sa njaboot bu boobaa mën naa bañ a neex mën naa bañ a nekk mbégte waaye mooy maye mbégte ma ëllëg ngeen bokk nekk ca biir aljanna njaboot ga kenn ku nekk bég ci sa morom kon kooku li ko waral mooy ci àdduna def daan bég ci lépp loo xam ne neex na njabootam doonte juyoo nag ndigalu suñu borom tabaraka wa taala loola moo ko yóbbee texee di googu bu ëllëgee moo tax mu ne farixan laa yufakkiru fil awaqib boo xam day kontaan lool ci biir njaboot gi lu njaboot gi def rek kontaan na ci nu ñu soloo kontaan na ci lu ñu waxe kontaan na ci nu ñu mel lu ñuy seetaan mu ne laa yufakkiru fi lawaqib wala yaxaafu mimma amaama fa ahqabahu dalika alfarax alyasir alxusnu tawil nee na mbégteem mu néew moomee mu doon am ci biir njabootam mujj na ko yóbbe naqar woo xam ne wu yàgg la borom bi delloo wax ba tey ñi nga xam ne wa ida nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin nee na ñi nga xam ne bu ñu delloo ci seen njaboot dañuy dellu ànd ak mbégte ànd ak caaxaan ànd ak kaf maanaam du ñu fullawu ca biir njaboot ga du ñu leen teg ci yoon waaye lépp lu leen neex rek neex na njaboot ga loolu bokk na ci liy yóbbe nit ki bu ëllëgee mu perte boppam perte njabootam loolu nag tekkiwul ne lislaam dafa àndul ci lu doom aadama di féexale bakkanam akay diine ji diine ju mat sëkk la lépp loo xam ne lu doomu aadama di yittewoo la ci ab dundam lislaam xàllal na ko yoon wu mu war a jaare ca loola nu mu ca war a jariñoo te la cay lor mu mën ca mucc yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi saxaaba bu ñuy wax Hanzala ñëwee ci moom ne ko man day damaa ragal ci sama bopp ak nifaq mu ne ko ndax lan mu ne ko damaa gis ne bu ñu nekkee fi yow man bu ma nekkee fi yow ni may mel ci sama ngëm yàlla fi muy toll ak sama jublu ci jaamu yàlla waaye bu ma génnee ba dellu ci sama waa kër ba jaxasoog waa kër ga waxtaan ak njaboot ga nekkaat ci mbiri àdduna loola dama yëg mu wàññi ko lool yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nag bu ngeen doon mel ni ngeen di mel bu ngeen nekkee fi man bu ngeen ko doon mel bu ngeen génnee kon malaayika yi danañu saafu ante ak yéene walakin yaa xanzala saa wa saa ne ko kon mbir mi léeg-léeg la niveau bi ngay egg léeg-léeg ci sa ngëm yàlla gu kawe ak sa sawar ci jaamu yàlla léeg-léeg itam nag boo nekkee ci mbiri àdduna yi duutu toll foofa waaye du dem tee nag mbir yooye su fekkee na ko yàlla diglee nga koy doxale ànd ak yéene ju sell teewul ak jaamu yàlla lay doon donte nag fi nga nekkee ci ajwaul iman muy fi nga xam ne da fay fàttalikoo sa ngëm yàlla di yokk du bokk ak nag nga xam ne moom mbirum àdduna rek lañ fay sabablu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu robbee waa xabasha ñu ne ca di def seen pomo mu nga ne waaye dañ ci wane ak njàmbaar yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne fi leen xudu ya bani arfada hatta taalama alyahudu wannasara anna fi diinina fusxa yonente bi sallallahu alayhi wasallam encouragé na leen ne leen def leen ba yahood yeeg nasaraan yi xam na suñu diine jii am nag yaatu yaatu du diine ju xat am na féexal bakkan ca anam gadagat ba tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana kaf ak ay saxaabaam ñoom itam daanañu kaf ak moom waaye nag bu ful la taxawee nag yitte taxaw nag nga daal di xam ne nag humul rijaal duñu rek niti kaf nit caaxaan waaye nag kaf goo xam ne féexal sa bakkan la te lépp di dëgg loolu lislaam terew ko sëkk la boo xam ne amul genn wet gu muy notal ca gàcca waaye dundu doomu aadama bi lépp dafa jokkaloo ak diine ji amul benn yoon boo xam ne jullit danaan moomoom boppam lu ko neex mu def ca waxtu woowa déedéet qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiina laa sharika la waxal ne samay jaamu yàlla yépp ak sama dund ak sama dee lépp yàllaa ko moom kon loo cay def day fekk mu dëppook ndigalul suñu borom tabaraka wa taala moo tax kon jullit lu muy féexale boppam wala mu di ci féexal njabootam war na caa wuuteeg ku dul jullit ña nga xam ne seen dund bépp moom pola wata borom bi naan fazaruhum yaxuudu wa yalabu atta yulaaqu yowmahum alladi yuadun bàyyi leen rek ñuy fo ak a nóor ci di wax lu ñu xamut ba bis bi ñu leen di dig dikkal leen moo tax am na ay tënk ay règle yoo xam ne jullit bi war na ko sàmmonteel ndax léegi bu ñu waxee wàllu njaboot te léegi fi jamono toll ci ay jumtukaay yuy nekk ci kër gi yoo xam ne dañ ciy wax ne dañ ciy bëggal njaboot gi te borom bi aaya boobu wax ne innahu kaana fi ahlihi masrura ndax loolu kon day tekki ne kon lépp luy waral mbégte ci kër gi rek dañ ko faa war a génne ndax ñu bañ a nekk ci fi ahlihi masrura déedéet waaye mën nañu bég waaye nag ci ay tënk yoo xam ne day tënk ci sharia ba wa mahyaaya wa mamaati jooju ñu waxoon nekk lu dëggu ci noonu moo tax am na ay dawaabit ay tënk ndax fi ne li gën a sànq njaboot gën leen a mën a réeral mooy wasailu tarfih muy jumtukaay bégalukaay yi nga xam ne moo bari léegi tasaaroo ci àdduna bi tey nekk ci biir kër yi muy télévision yeeg jumtukaay ya muy àndal yépp ci lu mën a indi xibaar man laa wan leneen luy xew feneen te mën naa am loola bu doon fa muy xewee rek doo fa dem waaye comme dana ñëw ba sa biir kër te am ca loo xam ne dafa wuuteeg sa diine loolu yan taxawaay la ci jullit war a am dawaabit yooyu ba ci jiitu mooy jullit bi su dee def tarwix ani nas muy féexal ba kanam moo xam ñu muy toogal ci jotaay di waxtaan la wala lu muy xool la na tànn mbooloo ma nga xam ne moom lay dimbalanteel ca loola doon mbooloo moo xam ne ñu koy dimbali ci topp yàlla la ñuy doon ndax yonente bi alayhi salaatu nee na fal mar'u ala diini jalisi nee na kenn ku nekk diine yi ña muy toog a ndool diine jooja la yor ñooy faral di toogal rek grand place booy faral di toog wala mbooloo mooy fréquenté fu seen diine toll rek foofu la sa diine di solo mu misaal ñaari toogaale jalisu saalix wa jalisu suu mu ne jalisu saalix ka xaamilal misk jalisu suu ka naafiqil kiir toogandoo bu baax nee na mi ngi mel ne ki yor misk muy parfum bu neex boo xam ne nee na benn nga jënd wala benn mu ne la am laalal wala benn boo fa jógee xet gu neex soppe la kon toog a dog ku baax moom faw nga jële fa njariñ benn nga laaj ko mu tontu la wala laajoo ko moom mu laayee la biir ci lu la amal njariñ ci sa diine wala sax laajoo ko moom itam waxu la waaye ni nga gise defiinam ak waxiinam jële nga fa bind yoo xam ne dana la mën a jariñ ci sa diine mu ne ki ci des nag mu ngi mel ne koo xam ne safara lay upp benn safara wa naaw lakk sa yére wala boog nga jëlee fa xet gu naqari kon nit ki ñamuy toogandool war na koo tànn kon daganul muy toogandoog koo xam ne kooka du julli wala amul soxla ci julli ci waxtu du fàttaliku suñu borom tabaraka wa taala joxul diine benn gëdd kooku kenn wërta toog ak moom na dangay ngay féexal bakkan wala dangay ngay waxtaan walla da ngay passé sa waxtu ci loolu bokk na ci tënk yi itam jaxasoo góor ak jigéen bu mu ca am ca fa ñuy defee tarwix boobu moo xam lu ñuy seetaan la bu dee lu dagan a seetaan it jaxasoo góor ak jigéen bu mu ca am te ni koy faral di gise ci saal yi léegi ci télévision yeeg yu demee noonu yu bari bu ñuy seetaan lu leen yitteel ñéppay toog jaxasoo góor ñi ak jigéen ña bokk nekk ci benn place loola itam bu boobaa ña ngay def loo xam ne lu lislaam tere la ndax jaxasoo góor ak jigéen bokk na ci sikk yi gën a mag rawatina nag bu ñu nekkee ci barab boo xam ne barab bu mbégte la boobaa jaxasoo googu baaraas yi doon dox ci diggante bi yépp day dañ waxtaan waag kaf gaag ree gaag yooyu mooy tax kenn duutu mooy fu sa moroom ci diggante ñaar ñoo ñu nga xam ne waruñu woon a jaxasoo te yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne nit ki ñu tàngal ak rab ba mu tàng ñu jam ko ci boppam moo gën a sedd ci moom yaramam di laal bu jigéen joo xam ne ju ko daganul la kon toogandoo foo xam da ngay jonjoog jigéen ña dangay ngay jaxasoog ñoom layale ko na dafa am lu ñuy seetaan wala dañuy waxtaan wala dañuy ngonnal donte biir njaboot ga la boo xam ñu reer ba noppi toog seenub saal ay jaamur nekk ba yu góor yu jigéen loola bu boobaa ña ngay juyoog tërlinu lislaam ca loola bokk na ci itam ci watailu tarfi yooyu muy jumtukaay yooyu ñuy bégale ñu bañ caa topp bañ caa roy noonu lislaam ca melokaan yañ koy defe ca rappelé wa nga xam ne dana di am ca nit ñay génn wala film ya nga xam ne danañ ko di seetaan mu doon yoo xam ne dafay juuyoo ak melokaanu lislaam loola bépp jullit boo xam ne gërëm na yàlla muy buuram gërëm na lislaam muy diineem gërëm na yonente bi alayhi salaatu muy ab yonentam war naa wattandiku loolu te loolu xam ngeen bari na lool léegi te lislaam li mu teree nit ki muy génne awraam noonu la tere itam keneen ka muy xool awraam woowu su ko génne xam ngeen ne jumtukaay yu ñuy defee tarpix yooyu lu mel ne télévision yeeg yooyu yi di day faral di génn di wane ay po di génne seenu yaram génne seen awra yoo xam ne lislaam dafa araamal ñu génne ko yow ma toog di ko seetaan itam yaa ngi am bakkaar bu mel ne ba mu am moom ma ko génne kon loolu itam war nañuy sàmmonteeg moom bu baax su fekkente ne lañuy ñuy seetaan noonu la mel doonte daganoon naa seetaan waaye ànd naag lu dëganut su ko defee ñu wattandi ko loola naka noonu waxtu wa ñuy def féexal bakkan googu itam war nañ ko sàmmanteel bu baax bu mu nekk waxtu woo xam ne waxtu jaamu yàlla la bu mu nekk waxtu woo xam ne waxtu julli la sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mi ngi nettali nee na kaana nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yudaaxikuna wa nudaaxikuhu fa ida samia al adana fa ka annahu la yaarifuna wala naarifuhu sidatu Aïsa nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam daana toog ak nun waa këram di reeg nun nuy reeg moom di waxtaan waaye nee na bu déggee nodd day mel ne xamunu ko moom it xamunu ko bu déggee nodd rek jotaay ba day daal di tas day daal di jóg sévère lool mbir ma foofa lay daal di yem bokk na ca itam ci mat a wattandiku ci yooyu di jeexal ak guddi ci yu mel noonu moo xam ci waxtaan rekk la walla ci seetaan ay mbir la yoo xam ne yu ñuy bëggale bakkan la donte lu dagan lay wari su caa jeexal guddi gi lépp yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wattandikuloo astamaru tawil maanaam ngonnal lu gudd waxtaanu ngoon wu ñu guddal lool jëm fajar mu ne la yebi tann aqwaamun min ummati ala aklin wa lahwin wa xinaa'in summa yusbixuuna waxat musiqu xiradatan wa xanaasiir xasanahu al albani mu ne ay nit danañu fanaan ci sama xeet gis ngeen léegi xew-xew yii xew yoo xam ne di dañuy fanaan guddi ga lépp lu ñu koy fanaane aklun wa lahwun wa xinaa aklun wa lahwun wa xinaa la ñuy fanaane ba asamaan sa lekk ak caaxaan fo ak way donte loola diina lañ ko tuddee waaye fil xaqiqa loola ca lislaam moom noonu rek la mën a tudd nee na su ko defee suñu xëyee nag nee na fekk na yor nañu meloog atte euh, ay golo ak i mbaam xuux atte boobu lañ yor léegi donte ñu ngi yor seen jëmmi nit ba léegi waaye seen valeur seen xiima léegi ñooñu la tollool xiima léegi mooy summa radadnaahu asfala saafiliin dem nañ ba suufe ba tolloog ma yooyu wàccuwaay bokk na ca itam féexal bakkan googu bu ko nit ki dee def li mu ci war a sàmmonteel mu sàmmonteeg mu bañ a doon waxtu yoo xam ne àqi doom aadama def ca aju lu mel ne waxtu liggéey ndax jullit dafa war a matal ay engagement suñ la liggéeyloo ab liggéey jël la fenn nga war a liggéey xam heure bi nga war a xëy bi nga war a wàcc wala beneen bi nga war a gont ak bi nga war a wàcc heure yooye waroo caa jël benn heure di ko jeexal ci lu bokkul ak loola suñu borom na yaa ayuha alladina amanu awfu bil uqud kon sa waxtu liggéey nit ki waru ko bàyyi ne day am ab émission bu muy seetaan wala day am lu muy déglu wala day am leneen lu muy def yoo xam ne dafay gàllankoor liggéey ba bu boobaa ma ngay am ma ngay tooñ mbokkum julitam ma nga xam ne moom la séqal liggéey boobee te lañ diggante woon du loolu bokk na ci itam war nañoo sàmmanteeg war a ba ñuy defee féexal bakkan googu ba mu doon ci ay barab yoo xam ne place publique lay doon yoo xam ne melokaan yu fay rek lu mel ne place yi ci boori géej gi xam ne waxtu vacances ci la ñu nekk nit ñi danañu dem ci tefes yi yow man nga ne sax xëy na yow da bëgg a dem rek féexlu yor sa téere di jàng wala nga yor sa bande di déglu waaye ña nga fay dajeel melokaan yi ñuy mel na ñuy génne seenu yaram nañuy jaxasoo loola tax na bu fekkonte ne la la tax a jóg lu dagan barab boobu moom bu boobaa duutu nekk barab boo xam ne eh, bu ñu mën a defee la la taxoon a jóg la bokk na ci li ñu watan war a watandiku itam di bañ a dépenser ay dépenses yu bari ci lu jëm ci anam googu di jënd ay appareils yu cher wala di abonné ci ay chaînes yoo xam ne la nga cay fay kenn xamul lu mu toll te loolu lépp ay caaxaan dong lay indi sa kër. day dugg ci li borom bi ne wa min annaasi man yastari lahwa alhadis li yudilla an sabilillahi bi xayri ilmin wa yattaxidaha huzwa ulaika lahum adabun muhin aaya boobu gënees na ko dégg ci jamono yii ndax bu jëkkoon xëy na nit ki kaset lay jënd wala band wala leneen waaye léegi nit ki day abonné ci ay seen maanaam jënd na lahwal xadis ay caaxaan yañ koy andil biir këram te mu koy fay parweer weer borom bi tabaraka wa taala nee na am na ci nit ñi ñu koy def te loola nag lu ko ku ko solo lay doon day wax ne loolu amul solo wa yattaxisaha huzuwa borom bi nee na ñu day buggal mu tar mi ngi leen di xaar bu ëllëgee kon yooyu nit ki waru cee xaabaabal ci di ci dépenser alal ju bari ndax borom bi dafa tagg ñi gëm yàlla ne ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dalika qawama amma nag taxawaay yi nga xam ne responsabilité bi nga xam ne nit ki am na ko ci njabootam ci yar ay doomam yar képp koo xam ne ku mu jaboote la loolu lislaam gàll na ko ki nga xam ne moo boroom njaboot ji ndax njaboot muy doom tasrif la waaye taklif la suñu boroom daf koy terale nit ki waaye itam nag da ko cee sas da ko cee yan ab yan boroom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaata wa yahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraanan wa inaata wa yajcalu man yashaau aqima innahu alimun qadir nee na yàlla day moo moom nguurug asamaan ak suuf mooy bind lu ko sob mooy may gis nga kon doom yàlla moo la koy may yahabu liman yashaau inaata nee na mooy may ku ko soob doom yu jigéen mooy may ku ko soob doom yu góor mooy booleel ku ko soob doom yu góor ak yu jigéen waaye mooy def ku ko soob itam nag muy kudul am doom ndax moom yàlla alimun qadir dafa xam te am kattan ci def delloo wax ne almaalu wal banuun zinatul xayaati dunia wal baaqiyaatu saalihaat xayrun inda rabbika sawaban wa xayrun amala nee na almaalu wal banuun muy alal ak i doom nee na mooy taaru àdduna kon ku yàlla jox njaboot jox na la lenn ci liga nga xam ne lu ñuy taarloo ci àdduna la muy ak njaboot waaye nag dala caa sas sas wa mooy xoo anfusakum wa ahlikum naara na ngeen fegal seen bopp fegal seen njaboot safara yonente bi alayhi salaatu wasalaam di leeral ne way jur wi am na responsabilité bu ci ni njabootam mel mu ne ma min mawludin illa yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi nee na ku judd rek suñu boroom moo ñaane la ci moom ak mën a baax muy fitratul ci la borom bi tabaraka wa bind doomu aadama yi fa aqim wajhaka li diine xanifan fitrata allahi allati fatara annaasa kon ku judd judduwaale na man a baax man a gëm yàlla man ko wéetal waaye nag na muy mel ña ca seen responsabilité jiitu mooy ñaari way juróom moo tax mu ne fa abawaahu kon ni ñuy def léeg-léeg di ko féetale benn boor nit ki su meleen nee na ñu ne yaayama wala ñu ne baayama li gën a bari su melee num wërta mel ñu ne loolu liggéeyu yaayama léeg-léeg su amee mel lañ ko doon yaakaare ci moom ñu ne loolu barkeb baayama fekk na nag ñoom ñaar ñëpp ñoo ci am responsabilité donte lam am moom lu mu am ci xéewal moom suñu borom tabaraka wa taala moo ko joxe fa bi ma bi fa ma bikum min nihmatin fa min allah lépp lu nekk ci yéen ci xéewal ci borom bi tabaraka wa la bàyyi ko waaye melokaan wu ñu mel nag ci jub ak ñàkk a jub kooku ñaari way jur yépp ñoo ci am responsabilité fa abawaahu yu hawwidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi moo tax yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ak ñu baax ñépp dañu daan yittewoo lool seen baaxuk njaboot ibrahim ak yaqub alayhim assalaam suñu borom tabaraka wa taala mi ngi tudd seen taxawaay ci seen njaboot ci alquran wa wassaa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafaa lakum ad-diin fala tamuutunna illa wa antum muslimun suñu boroom nee na ibrahim ak yaqub alayhim salaam dénk nañ seeni doom kon nit ki war nay woo ay njabootam di leen dénk di leen xamal li mu nekk moom ndax doomu aadama dafa bokk ci melokaanam bëgg roy ay baayam ak i maamam bañ a juyoog ñoom bari dañ ñu ñoo xam ne li leen sànk dañ naan lii la suñuy bàyyi nekkoon ak suñuy maam inna wajadna abaana ala umma wa inna ala athaarihim muqtadun ñun dey dafa am lu ñu fekkoon suñuy baay ak suñuy maam nekkoon ca loola lañuy ñuy topp ndax ñu baree baree bari dañuy ayibal nit ki ci bu juyoog baayam ak i maamam ci du ci diineem ci doxalinam ñu ne ko yow day lii ngay def say baay ak say maam meluñu ni woon yaa fi andi leneen loolu dafay diis lool ci nit ki bu fekkente ne xàmmeewut ba tax na li gën a bari dafay bëgg a ànd ak ci bàyyeem ak ki maamam moo tax bàyyeem ak ki yooyu su fekkee ci lu leer lañu nekk war nañ koy leeral seen njaboot moo tax ñu ne leen inna allaha astafa lakum diin yàlla day diina la leen tànnal fala tamutunna illa wa antum muslimun naka noonu nuux alayhi suñu borom tabaraka wa taala mi ngi tudd ci alquran nu mu yitte woo woon doomam gir mu jub donte doom ja dafa teg moom wanaada nuuxun ibna wa kaana fi maazilin ya bunayya arkam maana wala takum ma alkafirin mu ngi wax ne yow sama doom kaay dugg ci gaal gi ànd ak noonu te bul ànd ak ila jabali yaasimuni min al qaala laa aasima alyawma min amri illahi illa man rahim wa xaala baynahuma almawju fa kaana min almugraqin mu ne ko bàyyi man dama yéeg ci montagne mi dana ma mën a musal mu ne ko tey kenn mënta mucc ci mbirum yàlla mii lu dul ko yàlla musal te ko yàlla na ma musal mooy ku dugg ci gaal gi gis nga topp na ko ba moom sax nar caa am problème ndax bam ne indam nii min ahli yàlla day sama dooma ngee di lapp te ci sama njaboot la bokk te wa inna wa alxaq te yow yàlla li nga digee lu dëggu la te yaa ne ma woon sama njaboot danañ mucc wa anta ahkamul xaakimin mu ne ko yaa nuux laysa min ahlik innahu amalun xayru saalix fala tasal nii maa laysa laka bihi ilmu inni aisuka an takuna min aljahilin kooku bokkul ci sa njaboot donte yaa ko jur waaye bokkul ak yow ay jëf ba tax na fa muy mën a bokk fi ngay mujj yow na nga wattandikoo nag bokk ci ñi nga xam ne dañuy réer lam mujj mooy wa in lam taxfir lii wa tarxam nii akun min alxaasirin yàlla soo ma yërëmul jéggal ma kon danaa bokk ci ñi fat nga gis Sakariya alayhi salaam moom itam ba mu yeexee am njaboot ma ngi ko doon yittewoo di wax ne fa habli min ladunka waliya yarisu nii wa yarisu min aali yaqub waj'alhu rabbi radiya yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma koo xam ne dana ma donn dana donn lii ma nekk lii ma donne ci samay baay ak samay maam muy yaqub ak ibrahim te mooy diine tawxid nga may ma doom joo xam ne dana donn loolu wéyale ko te doom jooju ne na nekk doom joo xam ne joo gërëm la gis nga kon ñoom yonent yooyu daaw ñu ñaan alal daaw ñu ñaan daray àdduna waaye daana ñu ñaan njaboot gu baax nga gis luqmaan alayhi ah, luqmaan ba muy dénk doom ja wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaizu yaa bunay laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim gis nga Luqmaan moomu bi muy yar doomam di ko waar di ko dénk la mu ko dénk mooy bul bokkaale ak yàlla ndax bokkaale kat tooñ gu màgg la ba dénkaane ba mu ko dénk yépp jeex da nga ciy déggee ne ñoom ni ñu doon bàyyee xel seen njaboot ci ni ñu ko doon dénk nga gis borom bi tabaaraka wa wax wax boo xam ne ñépp ci bokk muy nit koo xam ne ku baax la koo xam ne yar nañ ko yarub diine ba mu nekk mu kàllaf bokk na ci la muy ñaan bu ëllëgee hatta ida balaga asudda wa balaga arbaina sana qaala rabbi awsini an ashkura nicmataka allati ancamta alay wa ala walidaya wa an acmala salihan tarda wa aslix li fi zuriyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin su boroom ne ki ñu yar yarub diine su demee ba nekk mu kàllaf day ñaan ne yàlla yàlla nag ma may ma sant mbooleem li nga ma defal ci xéewal nga may ma ma sant way wayjur yi nga xam ne ci ñoom nga ko jaarale waaye yàlla yàlla na nga ma baaxalal sama njaboot wa aslih lii fii zurriyati yàlla yàlla na nga ma yéwénalal yàlla na nga ma baaxalal sama njaboot borom bi tabaraka wa taala tudd ko ci sifaatu ibaadu rahman wallazina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama suñ boroom jaamam yi mu gërëm nga xam ne ñoom la tudd seeni melokaan ne ñii ñooy texe bu ëllëgee bokk na ci seeni melokaan dañuy ñaan yàlla yàlla may leen ci seeni soxna may leen ci seenu njaboot seeni doom ak seeni sët seen xol sedd ci ñoom xol bu sedd ci doom nag cib jullit du caagee ni am na place rek am na alal rek niñ koy faral di waxee ku tekki la waaye xool bu sedd ci jullit ci njabootam mooy njaboot gu jub gu tënku ci siraatal mustaqim bu tegu ci sunna yonente bi alayhi salaatu doonte am am ba néew na waaye ña nga ca njub ga loolee ci la xolu jullit di sedde waaye su fekkee njaboot gi lu ñu dëng-dëng ak lu ñu sori sori diine bu fekkente ne am nañu man-manu àdduna sa xol sedd ci ñoom lool nga di leen damoo kon day mel ne yow àdduna rek moo la tax a jóg waaye àllaaxira yi teelu la te njaboot googee bu boobaa danga leen bu ëllëgee da nga leen perte te itam seen am am boobee du la jariñ dara moo tax suñu borom tabaraka wa taala ci ismail alayhi bokk na ci lam ko tagge wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati waz zaka wa kaana inda rabbihi mardiya nee na Ismaayil alayhi salaam day daana digal njabootam julli ak joxe asak gis nga mu digal yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha moo tax kon bokk na ci li ñu gën a war a yittewoo ci njaboot gi mooy ñuy julli mooy ñuy julli góor ña ñu julli ji ca jàkka ja jigéen ña itam di julli ànd ak ko laab di ko def ci waxtu ànd ak sart yam war a àndal yépp loolu nit ki war naa fexe ba mu sax ci biir këram bu baax a baax baax a baax loola mooy tax njabootam taxawaay ba mu ca war a taxawee nekk boo xam ne bu mat la am amma nag aaya bi ñu ubbee woon nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf ñu ci diggal ne kenn ku nekk war ngaa jëf lu la musal ci safara waaye war ngaa teg sa njaboot ci yoon woo xam ne dana mucc ci safara moo tax te mbir bala nga am mën a mucc nag da ngay xam la cay yóbboo moo tax dañ tudd lenn ci sabab yi nga xam ne dana suñ borom wax ne dana dugal nit ki safara ngir ñu mën koo wattandiku mën koo wattandikul suñ njaboot suñ borom tudde ci ay aaya ay sabab yuy jugale safara mu ne balaa man kasaba sayi'atan wa ahaatat bihi xati'atuhu fa ulaika ashaabu nnaar hum fiha xaalidun nee na ñii wax ne ñoom dañoo bokk fii wala dañoo bokk faa comme ni ko yahut yi waxee naan lan tamassana naar nun sawara dunu lakk nahnu abnaullahi wa ahibaau nun nooy doomi yàlla ñooy ay sapet te am na ci pas-pasi nit ñi ñuy jàpp ne askan sàngam ku ca bokk wala deret sàngam ku ko yor kooku moom sa yaram arab na safara suñu borom tabaraka wa taala xam le ne loolu amut de balaa li am mooy man kasaba sayyi'a wa ahaatat bihi xati'atuhu fa ulayka ashaabun naar hum fiha xaalidun nee na képp ku def ñaawteef say bakkaar wër la wet gu nekk fees ak foo mën a bokk ak ku la mën jur nee na bokk nga ci waa safara fa ulaika ashabu naar hum fiha xaalidun borom bi delloo wax ne wa man yartadid minkum an diinihi fa yamut wa huwa kaafir fa fi dunya wal axira wa ulaika ashabu hum fiha xaalidun nee ku murtat ci diineem bàyyi diine donte bàyyiwu ko ci tur ma ngi koy tuddoo ba tey waaye nag ma ngay tabbi ci loo xam ne mën na tudd ànd ak diine génn na daairatul iman ci ay waxam wala ay jëfam kookee bu boobaa même bu tuddewul boppam ku mortat ku mortat la borom bi ne ñooñee seen i jëf sippiku na ci àdduna ak alaxira te ñooñu ñooy waa safara bu ëllëgee borom bi dala wax ne wallazina kafaru awliyaahum taaxuut yuxrijuunahum min annuuri ila zulumaat ulaika ashaabu naar hum fiha xaalidun nee na ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla wala ñuy bokkaaleeg yàlla nee na seen kilifa mooy seytaane te da leen di génn ci leer leeru ngëm yàlla yóbbu leen ci ay lëndëm lëndëmu kéefar lëndëmu wedd yàlla lëndëmu naafeq nee na ñooñ ñooy waa safara bu ëllëgee borom bi dellu wax ne ahalla allahu al wa harrama riba fa man jaahu mawizatu min rabbihi fantaha fa lahu ma salaf wa amruhu ila allah wa man aada fa ulaika asxaabu naari hum fiha xaalidun suñ boroom day daganal na njaay ak jënd waaye nag araamal na riba mu ne képp koo xam ne mi ngi doon jëfandikoo riba ak waar ak fàttali dikkal ko gu bàyyi ko suñu borom tabaraka wa taala mu daal di bàyyi ah boobaa day lam ca jotoon a def suñu borom tabaraka wa taala jéggal na ko ko lam ca jotoon a joxe ci alal bopp alalam mën na caa jotaat waaye ku ca delluwaat nag borom bi nee na ñooñu ñooy waa safara kon bokk na ci liy yóbboo safara jëfandikoo riba continuer di ko def gannaaw boo xamee àtte ba ba noppi sabab yooyu nga xam ne dana waral nit ki du mucc ëllëg ñaari sabab la ko borom xam-xam yi at asbaabun mukaffira tuxriju faailaha min al iman ila al kufr wa tuujibu lahu alxuluda fi nnaar am na sabab yoo xam ne day def nit ki ab yéefar da koy génn ci ngëm yàlla yóbbu ko ci kéefar te day waral mu dëkk ci safara am na yeneen sabab yoo xam ne mu fastiqa la maanaam day gis nit ki ab faasix boo xam ne da koy génne ci al adala ci ak maandu ak njub bu boobaa dana yeyoo dugg safara waaye nag du ca benn sabab yu jëkk yi ba ci jiitu mooy bokkaaleeg yàlla wutal yàlla ndend bokkaaleeg moom ci bi rububiyaam te mooy ay jëfam yi nga xam ne yàlla rek ko mën nga koy askanale mbindeef di wax ne diwa andi taw bi diwa tax ne diwa guddal mooy guddal fani nit ñi moo leen di musal moo leen di jox wërsëg yooyu nga xam ne suñu borom tabaraka ko taala moo ko jagoo ngay am kenn koo koy moomale loolu day daal di génn nit ki ci diini ji naka doonu bokkaaleeg moom ci uluhiyaam ci muy jaamu yi ñu war a def jëme ko ci moom nga di ko jëme ci keneen wala bokkaaleeg moom ci ay melokaanam melokaan yi mu mel nga di ko melal ci keneen yooyu yëpp dafay génne nit ki ci daairatul iman da koy dugal ci bokkaale te borom bi nee na man yusrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu nnaar wa ma li zalimina min ansar borom bi nee na ku bokkaaleeg yàlla ba faatu ci lool kooku suñu borom araamal na ci moom aljanna wàcc waayam safara lay doon bu ëllëgee borom bi dellu wax ne bokk na ci melokaani doomu aadama yi amul tawxid wa ida massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilay summa ida xawalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilayhi min qablu wa jacala lillahi andaadan li yudilla an sabilih qul tamattac bi kufrika qalila innaka min ashaabi nnaar mu ne doomu aadama kese boo xam ne ngëm yàllaam dëgërut nee na su ko lor daree dafay dellu ci boromam di ñaan ndax fitratul iman bi ñu jiwoon ci moom mooy yëngatuwaat nit ki lu mu bokkaale bokkaale bokkaale bu tiitee rek wala mu jàq fokk jiwu iman wi nekkoon ci moom fokk dafay yëngatuwaat su ko defee nag mu daal di ñaan suñu borom tabaraka wa waaye nee na su demee ba am xéewal nag summa ida xawalahu nicmatan minhu nasiya nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu mu daal di fàtte ne moom yàlla la doon ñaan wa jaala am andaada mu daal di wutal yàlla ay nden daal di wax ne nangam gàllaajam wala liggéeyub ndeyam wala baaxu baayam wala sëriñam loola mooy li ko musal ci lii waaye yàlla moom duudu ko ca tudd borom bi ne li yudilla an sabili ngir mu réeral nit ñi wacc leen ba duñ topp yoonu yàlla topp loolee muy wax ne moo ko musal mu ne kooku nee ko bànneexul ci sa kéefar diir bu néew innaka min ashaabin naar yow de ci waa safara nga bokk sababu ñaareel bi mooy weddi yàlla wala kon loolu nit ki war na cee yar boppam yar ci njabootam mu am bañ a am dara lu muy doyadal ci diine moo xam jigéen juy muuru la mu bëgg a muuraay googa wala góor gu yarub sikki moom la wala kuy gàttal mbubam la képp kuy def loo xam ne lu dëppook sunna la njaboot ga ñàkk koo xam di sabote loola wala am lu ñu cay wax na leen ko leeral xam ne loola mooy diine xam ne loola lañ war a def ñoom wala buñ ko defut itam ñu xam ne loolaay li wér waaye buñ ca am lu ñuy wax wala lu ñuy sabote borom baa ngi wax ne wala in saaltahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nalab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahsi'un la ta'tasiru al-yawma qad kafartum ba'da imanikum su borom a ngi wax ne ñooñu nga xam ne dañuy am lu ñuy sabote ci diine boo leen laajoon dañ naan dañuy kaf rek diw suñu waaye dañuy kaf ak moom rek na leen wax ne waaw yàlla ak i aayaam ak ub yonantam ndax moom ngeen di kafe moom ngeen di yëjji suñu bëggee dogal ngànt mu ne déedéet bu leen wut ngànt xadd kafartum baada imaanikum sababu juróomeel ba mooy nag di jëmale kaddu yu ñaaw ci suñu borom tabaraka wa taala ci diine ji wala ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa wala am looy ayibal ci diine walla nga di ko wayefal wala ngay jàpp ne daal diine ji nekkatul lu mën a dëppoog jamono loola lépp ku koy def te xam atte ba nekk ca loola loola bokk na ci li génn nit ki ci lislaam bokk na ci li nga xam ne daf koy dugal itam ci biir safara sababu juróom benneel ba atte woo lu bokkul ak li yàlla wàcce ba noppi ànd ak fas ne yeneen atte yooyu moo gën a jege dëgg atteb suñu borom tabaraka wa taala wala nga jàpp ne moog mooma yem ma ne atte woo sharia ak atte woo luwaa lañ gi ñooyam kepp wala nga jàpp ne sax sariya gën waaye yi itam dagan nañu atte woo yooyu yëpp lu ci nit ki fas rek bokk na ci li nga xam ne daf koy génn ci diine te bu boobaa daf koy dugal safara wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika humul kafirun sababu juróom-ñaareel ba nag mooy ak naafeq te mooy nit ki di déclarer l'islam ci biti te fekk na biir xolam moom kéefar moo ci nekk borom bi ne inna al munafiqin fi darki al asfali min an naar walan tajida lahum nasira nee na naafeq yi ña ngay nekk ca fa gën a suufe ci biir safara te nee na duñu am ku leen dimbali bu boobaa naafeq nag am na ay mandarga yu bari ndax naafeq mooy li ñu gën a tiit ci jullit jullit bi moom tiituñ ci moom kéefar wala duñ ko ca séentu bokk waaye li nga xam ne nit ki mën nay tuddoom jullit ba noppi mu nekk ci moom mooy an nifaaq bokk na ci ay mandargaam nag mooy sikki sàkka ci li yàlla wàcc am looy sikki sàkka ci alquran am looy sikki sàkka ci li yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale moo tax borom bi ne innama yastasinuka alladina la yuminuuna billahi wal yawmi al axir wartaabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun bu jihaad amee ñi lay tàggu naan dañoo bëgg nga jox leen ndigal ñu toog mooy ñi nga xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu bis penc seen xol day sikki sàkka ci yàlla li yàlla dige ëllëg ci aljanna ci ku dee ci jihaad la la yàlla dig ñoom gëmuñu loolu loolu moo tax kon ñu nekk naafiq bokk na ca melokaani naafiq itam sig atteb yàlla ak atteb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bari na lool ci jullit ñi tey boo leen tuddalee sharia boo leen waxee ne l'islam ci lañu war a atte seen xol sax day tàng ñu ne da nga bëgg a dellu nit ñi ci ay seekal ci gannaaw da bëgg ñu tarbe borom bi ne alam tara ila alladina yasumuuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduuna an yataxaakamu ila taaguuti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu shaytaanu an yudillahum dalalan baida suñu borom ne moo ndax gisoo ñi nee ñoom day gëm nañ li yàlla wàcce ci yow gëm nañ li yàlla wàcce woon ci yonent yi la jiitu woon ba noppi nag bëgg taaxoot atteleen maanaam ñu leen atte ci lu bokkul ak li borom bi tabaraka wa taala wàcc ñu bëggal ko seen bopp amaa ñu leen ci forcé moom am nañ ngànt waaye yuridun su fekkee ñoo ko bëgg nag boobaa moom amatuñ ngànt te waxad umiru an yakfuru bi dañ leen a digaloon ñu weddi taaxut ndax wa man yakfur bi taaxut wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa balaa sa ngëm yàlla mat balaa sa ngëm yàlla wér foog nga weddi lépp luy taaxut mooy lépp luy woote ab sañ-sañ boo xam ne yàllaa ko yeyoo te atte yàlla rek moo ko yeyoo in il xukmu illa lillah amara an la taabudu illa iya atte moom pouvoir loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko moom ku ko yore xalifa nga da nga ko caa wuutu inna jaal naaka xalifa moo la ca wuutal nga di ko doxal na mu ko bëggee inna jaal naaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabihi lhawa waaye atte ba moom du bàyyi ko ci kudul borom bi tabaraka wa taala bokk na ci melokaan yi naa fekk itam bañ am ndamuk lislaam di bég ci bu fekkente ne jullit ñi am nañu tumuranke jullit ñi am nañu coono ka nga xam ne day bég ca loola kooku na yëg ne xolam naafeq ngi ci borom baa ngi koy wax ne in tusibka xasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad axasna amrana min qablu wa yatawalla wahum farixun nee na ñoom day boo amee lu baax da leen dina xari am naa fekk bu jullit ñi amee ndam loola bu boobaa daf koy métti bu fekkente ne am nañ nag coono bu dal ci seen kaw nag loola boobaa daf cay bëgg loolu kuy tuddewoo lislaam ba noppi mel noonu mooy jëmm ja ak déclaration ba moo ànd ak jullit ña waaye xol ba moom yéefaree la àndal bokk na ci itam koo xam ne day wut fitna ci biir jullit ñi di dox ci lépp loo xam ne luy tàqale jullit ñi la lu leen di noonale la kookee melokaanu naa féq la yor borom baa ngi koy wax ne law xarajoo maa zaaduukum illa xabaala wala awdaau xilaalakum yabquunakum alfitna wa fiikum sammaacuuna lahum wallahu alimun bi zalimin naafeq yooyu borom bi tabaraka wa taala nee na bu ñu génnee ànd ak yéen fitna rek la ñu andi seen diggante te itam dañoo ne ci seen biir di déglul ñeneen wa fiikum sammaacuuna lahum bari na kuy tuddoo ci biir jullit ñi fekk na moom espion la boo xam ne renseignement lay bind pour di ko jottali noonu jullit ña ngir ñu xam fu ñuy jéem a jaar ba dal ci seen kaw loolu ku koy def melokaanu nafiq la bokk na ci melokaanu nafiq itam bëgg noonu lislaam yi bëgg njiiti kéefar yi ak di leen tagg ak di tasaare seeni xalaat yooyu ku koy def na yëg ne melokaanu nafiq mi ngi ci moom moom la borom bi naan alam tara ila alladina tawallaw qawman xadiba allahu alayhim maa hum minkum wala minhum wa yaxlifuuna alal kasibi wa hum yaalamuun xanaa gisoo ñi nga xam ne dañoo féeteeg nit ñoo xam ne yàlla da leen a mere nee na ñu bokkuñu ci yéen te it wane wuñu ne ci noon yee lañu bokk maa hum minkum wala minhum wa yaxlifuuna alal kasib du ñu nekk ci dëgg ba noppi nag mën nañ koo waat wa hum yaalamuun te xam nañ nekkuñ ci dëgg bokk na ci melokaan yi naa fekk itam di xeeb di ayibal jullit ñi rawatina jullit ñi nga xam ne seen man-man bariwut xëy na seen doole rek la ñu am waaye amuñu alal borom baa ngi koy wax alladina yalmizuuna almutawiina min almuminina fi sadaqat walladina laa yajiduuna illa juhdahum fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum wa lahum azabun alim nee na ñi nga xam ne jullit ñi nga xam ne dañuy coobarewu disponible maanaam lépp lu lislaam soxla ñu joxe seen jëmm donte amuñu dërëm buñ ca defet seen jëmm seen waxtu seen lépp mën nañ ko caa def su ko defee naafiqee xëy na ñoom am nañ di leen ayibal ca loola di leen sikkal ca loola bokk na ci itam rëy rëylu ba nanguwoo sax jullit ñi ñaanal la wala ngay sàkku ci ñoom ak ñaan loolu borom bi tabaraka wa taala ci na ci melokaanu naafiq la bokk moom la naan wa ida qiila lahum taalaw yastaxfir lakum rasulullah lawaw ruusahum wa raaytahum yasudduuna wa hum mustakbiruun buñ ne lee kaay leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaanal leenu njëggal ci yàlla su ko defee ñu du mooyu fële nee na daal di rëy rëylu daane wane gannaaw bokk na ci melokaanu naafiq itam koo xam ne julli day diis ci moom rawatina jullig mbooloo borom bi ne inna almunafiqina yuqaadicuuna allah wa huwa qaadicuhum wa ida qaamu ila alsalati qaamu kusaala yuraa'uuna annaas wala yaskuruuna allaha illa qalila nee na naafiq yi day dañoo mel dañuy jéem a wor dañuy jéem a nax seen digganteeg seen borom waaye seen bopp la ñuy nax ñu jógee jëm ci julli nee na dañuy tàyyeel lool te dañuy njistal duñu tudd yàlla lu dul lu néew yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne afqalu salaati alal al munafiqin salaatul isha wa salaatul fajr nee na julli gi gën a diis ci nafiq nee mooy jullit gee ak jullit fajar loolu kuy seetlu lu bari sa bopp nga koy manqué ca jàkka ja ci lu dul benn ngànt bu lislaam nangu boobaa na nga tiit sa bopp ci melokaanu nafiq yooyu bokk na ca itam di lor euh, di jëmale lor ci suñu borom tabaraka wa taala akub yonentam sallallahu alayhi wa sallam ndax doomu aadama sax mënta lor yàlla waaye nag mën naa jëmale ci moom lu ñaaw loo xam ne bu doon ci kuñ mën a lor lor lay doon moom la borom bi naan inna alladina yuzuuna allaha wa rasulahu laanahum allahu fi dunya wal axira wa aadda lahum adaban muhina walladina yuzuuna almuminina walmuminati bi gayri ma ktasabu faqad ixtamalu buhtana wa isman mubina jëmale suñu borom tabaraka wa taala loo xam ne yelloowul ak jëmmam ci di wax ci moom wax ju yellul wala di ko bokkaale wala di ko jëmale ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu ci melokaan yi naafeq la bokk amma xeetu ñaareel bi nag bi nga xam ne moom sabab la yuy dugale safara waaye boroom du béel ci biir safara ba ca jëkk mooy dëngi ay wayjur wayjur buñ ko waxee mooy ndey ak baay kon nit ki gannaaw dafa bëgg góor góorgóorlu ba njabootam mucc ci safara na leen yar yarin boo xam ne bu mu leen noonu bañ di ko noonu moom itam bu ëllëgee ba di ko dënge ndax am na taxawaay yu bàyyi wala yaay di taxaw ci doomam ci seetaan leen ci tumurankeen leen bu ñu màggee ñoom itam dañuy jéem a fayu loola di ko noonu te bu boobaa ñoom loola day nekk sabab bu leen dugal safara bu ëllëgee kon dënge ay wayjur wayjur bu mu ko sababal doomam borom bi tabaraka wa taala wax ne yàlla digle na ngeen wéetal ko ci jaamu waaye ngeen rafetal jëme ci seen i wayjur rawatina nag suñu nekkee mag imma yablughanna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima yonente bi alayhi salatu wasalaam delloo wax ne ñett yàlla araamal na ci ñoom àjjana mudminul xamr wala aqu li walidayhi waddayootu allati yuqiru alxubsa fi ahli nee na naankatu sàngara ak koo xam ne day dënge ay waajuram ak nee na koo xam ne day saxal ak mbon ci biir këram maanaa fiirul ci njabootam mën naa toog ci buntu këram góor gu diggu laaj ko doomam wala ku dëkk ci biir kër gu jigéen te mu xam ne amu fi soxna amu fi benn maxaramam bu fi ne mu ne ko dugal ci biir kër gi di wangoog wala doomam bu jigéen romb ko di génn di dem sol loo xam ne bokkul ak la mu war a sol di dem ci waxtu woo xam ne bokkul ak waxtu mu war dem mu bàyyi ko ci loolu kooku lañuy ñuy tuddee dayuus mooy koo xam ne fiirut koo xam ne fiirut fiir dafa bokk ci melokaanu jullit fiir ci sa njaboot ci di leen aar ci di leen soril lépp loo xam ne ak ndëngte la loolu bokk na ci li yonente bi alayhi wasalaam wax ne ku ko defut bokk na ci liy yóbbu nit ki safara ñett ñooñu yàlla du leen eh, day araamal ci ñoom aljanna sababu ñaareel ba dog ak bokk dog ak bokk te mooy lala ci ñoom ci ay àq nga bañati koo def yonente bi alayhi salatu wasalaam ne laa yadxulul jannata qaatiu sufyaan ne yaani qaatiu rahim mu ne dugg àjjana koo xam ne dafay dagg ak bokk borom baa ngi koy wax wallazina yaqta'uuna maa amara allahu bi an yuusal wa yufsiduuna fi l ard ulaika lahum laanatu wa suu daar ñi nga xam ne dañuy dagg li yàlla digle ku ko jokk te mooy ak bokk di dox di yàq ci kaw suuf nee na ñooñu day suñu boroom soril na leen yërmandeem te kër gu ñaaw ga la ñu dëkk bu ëllëgee te mooy kërug safara sababu ñetteel ba lekk riba te xam ngeen lekk riba ci jamono jii lu tasaaroo la ndax système économique bi yëpp daanaka ñi ngi ko teg ci riba borom bi na ne yaa ayuha alladina amanu la taakulu riba adaafan mudaafa wattaqu llah laallakum tuflixuun wattaqu naar allati uiddat lil kafirin wa atiu llaha wa la laallakum turhamun aay yooyu yëpp ñoo sësaloo bu leen lekk riba muy fulu rek di fulu adaafan mudaafa na ngeen ragal yàlla te na ngeen wattandi safara nag bi nga xam ne kat ñi ngi ko dëel yéefar yi te ngeen topp yàllaa ko yonentam kon wattandi ko riba bokku na ci li nga xam ne dana musal nit ki ci safara kon ku bëgg a mucc ci safara bëgg cee musal sa njaboot na nga wattandiku lépp loo xam ne luy tudd riba la bu ko wut jéem a wutal ngant naan damaa loru ñu baree baree bari banques yi bu ñu cay leb dañuy wax ne daroora la damaa loru te fekk na lu baree bari looy tuddee daroora xaaja la daroora mooy li nga xam ne moom boo ko amul doo dund boo ko amul moom doo dund moom maa nag xaaja mooy li nga xam ne xëy na sew dundiin moo ko aajoo ci nga bëgg saw dundit gën a baax ñu bari nag aajo la ñuy tuddee daroora maanaam mënumaa ñàkk ab oto wala mënumaa ñàkk kër gu mel nangam bëgg a tudde yooyu daroora yooyu boo ko amul it du la tee dund yooyu bu la taxee leb ci bànk wala tax laa leb lebiinu riba loola bu boobaa ngant boobu du ngant bu la yàlla di nangu sababu ñeenteel ba lekk alali jirib moo xam ay góor lañ wala ay jigéen wala di di caaxaan wala di ko foyee ba fexe ba lekk ko borom baa ngi naan inna alladina yakuluuna amwaala al yataama zulma innama yakuluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira nee na ñi nga xam ne dañuy lekk alali jirim cig tooñ cig tooñ ndax nag waxul lekk goo xam ne kat xëy na da nga ko caa yor di ca dépensé loola bu boobaa lekk googa moom du toog du tooñ waaye borom bi def ne wa man kaana ganiyan fal yastaafif wa man kaana faqiran fal yakul bil maaruf ku ñu dénk ab jirim te nga am sa yëfi bopp yoo xam ne alalam ji man nga koy dundalaale te doo laal alalam nee na def ko su fekkee nag mënoo ñàkk jël ci alalam nag ndax mënoo ko nee na na nga ci jël rek lu jaabu fal yaakul bil maaruf waaye jël sa soxlay bopp yépp léegi ci alalam nga koy faj loola la borom bi ne ku koy def na nga xam ne kat safara ngay lekk eh, bu ëllëgee sababu juróom mbenneel ba nag mooy ar rishwa mooy ger xam ngeen ne ger bari na lool te ger mooy lépp loo xam ne danga koy joxe ngir bëgg a jot loo yeyoowut wala nga di ko joxe ngir bëgg a teggi ak ju war ci sa kaw nga bëgg a am loo joxe ba lii war ci sa kaw teggi ko wala bëgg a jot ci loo xam ne waroo caa jot loola bu boobaa ka koy joxe ak ka koy jël ñoom ñaar ñëpp la yonente bi alayhi salatu wasalam ne arraasi wal murtasi fi nnaar waaye ki nga xam ne nag day joxe loo xam ne da caa bëgg a jot ak xam juñ ko bëgg a xañ kon ni muy amee léegi nga xam ne lii moom yeyoo nga ko waaye ki ko yor ne la boo ma joxul nangam doo ci jot loola moom boobaa loolu kenn du ko tuddee ger day mel na ku la agressé rek ku la forcé la jël sa alal bil baatil waaye yow joxe woo ngir jot loo yeyowut jëloo it yëfi kenn lii àq la joo xam ne yaa ko moom waaye xëy na moom ci loxoom la ne signature bi ci loxoom la ne te nanguwu koo def lu dul ne booba joxul nangam te amoo menn pexe moo mën a jaar nga jox ko loole ngir jot sa àq loolu bu boobaa moom du tudd ger ci yow amaa moom moom ger la ci moom baatil la ndax lekk na loo xam ne yeyowu ko ñaar yooyu itam lu mat a xàmmee la ndax bu dul loolu ci suñu réew yi ak ci at yii nga xam ne ñu baree baree bari ci ña koy doxal xëy na jàng nañu métier ma ba mën ko waaye la war a ànd ak métier ma nag muy al amaana addu ca ndax liggéeyu àdduna ñaar lay laaj compétence ak nag al amaana muy nag am confiance compétence ak confiance ñaar yooyu lay laaj compétence moom école yi mën nañ koo jàngale mais confiance nag muy ak doy kooku moom diine moo koy jàngale inna xayra man istajarta al xawiyu compétence baa ngoog al amin confiance baa ñaar yooyu nag mooy tax nit ki mën a liggéey la muy liggéey boo gisee système yépp di échec loolu la formation benn boor la ñuy def danañ jàngal nit ki métier mi ba man ko nekk expert ca lam jàng waaye nag biiram jikkoom kon digganteem ak boromam tabaraka wa taala conscience am loola boobaa nekkatul lu jub ragalul borom bi tabaraka wa la boobaa liggéey ba du jub moo tax muy laaj nit ñi ay alal ca la nga xam ne moom lañ koy liggéeyloo sababu juróom-ñaareel ba ci yi nga xam ne dana dugale safara donte du fa bélloo mooy ngiñ loo xam ne nit ki da ciy lekk yi jàmbur giñ giñ loo xam ne boo ko giñee ci kanamu ab jullit danaan kii wax na dëgg moo tax ñi koy def ñaare dañuy xool rek kii fa ngëm-ngëmam toll bu fekkee xam nañ koo xam ne moom ci ay nit la gëm yoo xam ne ci lay giñ ñu giñal ko ca kooka bu fekkee koo xam ne xam nañ ne ku am tawxid lay itam te ñoom ragaluñ yàlla ñu giñ ci yàlla billahi alladi la ilaha illa hu lii nangam la demee kooku kooko wax ci kanamu ab julit boo xam ne moom ñemewula tuumaal ci ñàkk a gëm ñàkk a gëm yàlla day jàpp ne li nga wax dëgg la boobaa nag loo ca lekk bu boobaa loola lu araam lay doon ci moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne man iqtataa maala aqihi bi yaminin faajira falyatabawwa maqadahu min an naar li yuballigh shaahidukum ghaibakum wax na ko ñaari yoon li yuballigh shaahidukum ghaibakum mu ne ko fexe ba jël alali mbokkam ci ngiñ loo xam ne la muy giñ du dëgg na xam ne wàccu waayam te safara ma ngi koy xaar mu ne lii ku fekkee bi ma koy wax na ko jot li ka ko fekkewu sababu juróom-ñetteel ba mooy nag di atte diggante nit ñi ci lu dul xam-xam di atte te déggoo ko ci xam-xam yonente bi alayhi salatu wasalaam ne alxudaatu salaasa waxidun fi ljanna wasnaani fi nnaar fa ama allati fi ljanna fa rajulun arafa alxaqa wa qada bih wa rajulun arafa alxaqa fa jaara fi lxukmi fa huwa fi nnaar wa rajulun qada linnaasi ala jahlin fa huwa fi nnaar yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ñiy atte